rahmatullahi taala wa barakatu ngi leen di nuyu di leen jaar di leen baalu àq di leen sàkk ci yéen njéggal yàlla mi boole njéggal yàlla nu yàlla boole jéggal di leen dalal di ñaan yàlla suñu jotaay bi yàlla na ko yàlla yéeg ci gën a ci ci jotaay yu kawe yu tedd yi nangul ñu ko it comme ni ñu ko sante ñu nañu ko li nañu defe nii ñu jéem ko defe noonu mu ko santaane incha allah ci kanton ñaan yàlla mu antanul ñu bay lépp luy yéene bu ñu waroon taxawee fii mbokk mi yàlla dimbali ko mu jottali ñu ko incha allah bu ñu ko jottalee ñu jël ñu jëfandiku ñu déglu ko ka taatanu ko déglu ko te jëf te jëfe ko yàlla may dimbale jàmm mi ba loolu antu yàlla nañ ci yàlla taxawee di jéggul yi njëggal gi mooy lii may def nii li way jéem la waaye lu ma tëdd la ndax Mansour lañ ko lañ ko waroon moo ko waroon a taxaw mais yàlla dogal na wax naa ko léegi mais du ci yokk kon bu loolu amee te comme waxtu yu jot na te it pour doon xaar yegg si na te loolu mooy waral liggéey bi incha allah lépp luñ ci nas rek ñu jéem fexe ba respecté waxtu ñu ko waroon a defee su yegsee rek ñu daal di commencé loolu bu nekk ku gudd attendre nag alhamdulilah bu fekkee ni lii war a tëye doomu aadama rek bu ñëwee yaa xam waaye daal li ñuy war a gën a góorgóorlu daal mooy li ñu yoon bu ñu joxee te joxe rendez-vous daal ñu dem parce que bokk na ci la war a liggéey bi war a gën a taxaw loolu gën a gën a gën a gën a sax te te incha allah di rafet a liggéey kon du ñu guddal daal ñu ngi leen di dalal jàmm di ñaan yàlla yàlla yàlla antalu ñu mbir mi incha allah ñu jox ustaat bi mu ñoom ñoom moo jubluñu ci liggéey bi comme ni ñu ko sàkkoo woon ñoom yàlla defal ñu ci tawfiq tawfiq tase na yaxar incha allah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونسح الأمة ومهو الظلمة ونسح الأمة ومهو الظلمة وكسف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginnaaw bu nu tàmbalee ci turu yàlla tabaraka wa taala noo ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na ko yàlla dooli xéewal te musal ko ginnaaw loolu mbokki julit yi ñi ngi ñaan yàlla tabaraka wa taala sunu jotaay bi yal na ko yàlla boole ci jotaay yi mu nangu ñu ngi ziyaare waa gox bi di ci jiital imam bi ak kilifa yi nekk ci ginnaawam ak mag ñi nekk ci gox bi nga xam ne ñoom ñoo fi jiite jamaa bi ñu ngi leen di ziyaara ñoom ñëpp di ñaan yàlla tabaraka wa taala yal nañ ko yàlla nangul ginnaaw loolu dafa am ab tomb bu nu fi war a dajale ci ak waxtaan ci fàttalante ci sunu diine mu nekk tomb boo xam ne tey jii ci guddi yi nu tollu dina baax jullit yi surtout ndaw yi daje di ko fàttalante seen biir te mooy ak دور الشباب في بناء المجتمع الإسلامي تكارنا لول مودون تومب بي موي waru garu ndaw jullit yi ci tabax société islam lan mooy waru garu ndaw jullit yi ci tabax société islam suñ ne ndaw nag góor ak jigéen la kon dina laaj tomb bi ñun ak yéen yépp ñu jéem ceet ñu jéem koo rëddal yoon wuñ koy jaaree bi ci njëkk mooy ñu xam lan mooy shabab ñu xam tamit lan mooy société ci la ñuy xam ndaw yooyu lan moo leen war ci tabax bu ñu war a tabax société boobu tudd société islam ak islam lu tax muy sàkku ci ndaw yi pour ñu tabax société boobu lu sikki sàkk amul lu ñun ñëpp kenn mun ta weddi ndaw yi tey dañoo yaafus jubluwuma ci nag ñi nekkul ci islam de ñii di woote seen bopp sunna laa wax rawatina ñun sunu mbooloo mi lu tax ndax dafa am fu nu doon séentu waxuma egg ñu fa waaye jëmuñu fa sax nag te jéemuñu sax def effort boobu pour jéem a dem te loolu mooy li jaaduwut dama dem barki démb rek seize APR matul une semaine benn kilifa gu ma fa doon gunge bi ñëwee toog ñoo ngi fekk ay ndaw yu doxe Fatick ba Dakar di remercier le président est-ce que yéen a ngi may dégg déggu leen ma de ma ne dama dem seize APR ma fekk fa ay jeunes yu jóge Fatick dox ak seen tànk ba Dakar lu xew dañuy féliciter président parce que am na lu mu jot a def ñooñu jaral na leen ñu doxe Fatick Dakar boobu sax xëy na barki démb la mais yéen ñi toog ñëpp suivre ngeen fi benn série boo xam ne ñi doon dox benn croix lañ yor di wër biir Sénégal te yóbbu nañ ko fépp croix boobu. yàlla def bi mu ñëw ba Sébikotane la damm bi ñu koy dugal Dakar tour du monde la doon def ñu indi ko ba Sénégal di dox ak moom jóge ci àll bi di ko dugal biir Dakar mu ñëw ba Sébikotane damm waaw mi jeunes yi ñuy woone jeune islam ñoom lan lañ doxagum ah ñoom yéen yëngu lañ yëngu ñoom lan mooy seen philosophie ci dund bi kon doomu ndey lu njëkk mooy ñu xam alshabab man hum man hum shabab ci l'islam ko am 18 ans ba 40 ans yow jeune nga 18 ans ba 40 ans ñii ñooy ñi islam bëgg ñii ñooy ñi l'islam soxla ñii ñooy ñi yonent bi doon dénkaane naan istawsu bi shababi xayran faqad nasarani alshabab wa xazalani alsuyux ndaw yi la yonent bi doon dénkaane dénkaaneem gu magga naan maa ngi leen di dénk ndaw yi ndaw yooyu mooy ñan mooy ñi am 18 ans jëm 40 ans beneen bi mooy yonent bi bi ko yàlla di yónni muy woote 40 ans la am ñeent fukki at ñeneen ñi ñëw ñëpp yonent bee leen mag te boobu yonent bi ñeen fukki atam mat na yàlla tànni ko yónni ko mu war a defar société mu tàmbali ñi ko wuyu si Aboubacar Umar Ousmane Ali ñëpp ay ndaw lañ parce que yonent bee leen mag sallallahu alayhi wa sallam ñii wuyu si ñëpp amul màgget nga gis ñun tey suñu philosophie déggin ci diine mooy islam diiney màgget la maanaam ci Sénégal dañu gëm ne l'islam diiney mag la bala ngay jaamu yàlla da ngay màgget dañoo am fan yi benn xale boo xam ne dafa bëggoon nekk mbër yàlla def muy ñëw dars mardi mercredi samedi mu commencé teggi tànkam papam commencé naan ko waaw ñi ngay àndal daal du ñii lañ bëggoon nga ànd ak ñoom fii ngay jaar daal du fii séentuwuñ loolu la ay jàng ak ay julli daal mën ngaa xaar ba ca kanam waxuma kenn de papam ba pare sax di jéem a siis ak di jéem a xatal ñu koy jël si di ko jéem a teg ci yoon woowu yoon wu baax wi nga xam ne dañ ko yóbbu jàkk di ko julliloo di ko yóbbu ci jàkk ji muy jàng si papa ji di commencé bu ñoo ñëwee mu leen di dóor ay traak naan xale daal moom bu ci tollee bu mu jiitoo sàpp bu mu bu mu jéem a njëkkanteeg mag ñi sàppee kanam xale daal bu ci tolloo na defar yaramam uti xaalis doole maanaam xale bi na bëri ji loolu mooy woon ne ñun ci dégg bu ñu xat bu bon bu ñu dégg diine balaa ngay jaamu yàlla nekk màgget góor wala jigéen balaa ngay muuru la ngay looy dégg soo fi waxoon benn xale bu jigéen yow la teree muuru mu ne la moo man fu ma toll bay muuru ay muuraay calagu ma ko de yaa koy wax de bu deen bala xale bu góor tamit kazalik gars yi sax dañuy wax sabiyan sabiyan walaw kaana nabiyan li oustaz Abdou Aziz Touré di wax sabiyan sabiyan walaw kaana narabon fekk loolu lañ waroon wax dañ naan boo nekkee ndaw dafa lu la neex parce que yonent yi sax biñ nekkee ndaw dañoo def lu leen neex loolu ban yonent la ban yonent moo foo dundam yépp ba màgget yàlla yónni ko kooku ba kan la ci yonent yi nu mu tudd ban dëkk la ko yàlla yónni woon nit ñi sax ñoo yor natiiru soo nekkee fokat boo fowee sa dund après nga bëgg a woote da ngay am problème koo ne ñu ne la xool dañ naan la xoolal gaañ nopp amul ku wér de ñun lépp dégg nañ ko ah et puis yow xanaa tey nga koy wax loolu la nit ñi di tegal kon moo tax yàlla subhanahu wa taala musul tànn yonent bu fo musul am yonent yi ci berceau la leen yónnee ñii biñ nekkee xale ñii biñ amee quarante ans yonent yëpp yàlla ngi leen yónni biñ nekkee ndaw kon yàlla yoon musul yónni yonent bu fo te yàlla day tànn ci biir xeet bi kër gu baax askan wu baax gis nga moo tax suñu waxoon Yusuf lan ngay dégg yonent di wax ku baax doomu ku baax doomu ku baax doomu ku baax parce que tànn la yonent alayhi salaatu wasalaam bu nu waxoon yusuf da koy tagg ne ku baax a ngoog waaye baayam ku baax la maamam ku baax la mamaatam ku baax la moo tax day tànn tànn téef la kon loolooy looy wane ndaw lu yàlla war a tànn daf ko ab yonent yàlla da koy baaxal pour nit ñi mën koo xool gis nga yonent bi yàlla dafa dajale yonent yëpp ci kanamam ne ko ulaika alladina hada allah wa bi hudahum iqtadi ñii laa baaxal soo bëggee baax rek jaaral ci yoon wi yonent bi alayhi salatu salaam yàlla daf ko woon yonent yëpp teg ko ci seen kanam waaye lan la wax da ko ne ñii laa baaxal soo bëggee baax toppandool ñii su ko defee alshabaab hum masdarul intilaqa lil umma mbokk yi ndaw yi ñooy point de départ pour xeet wi dañuy course course bi foog mu am point de départ foog mu am point d'arrivée il fallait que fi ñuy déparé nag ndaw yi rëdd rëdd wi taxaw ndaw yi ñoom ñooy tomb bi ñuy déparé jëm fañ jëm sans ndaw yi du dem looloo tax yonent bi ko yàlla yónnee bi mu ñëwee ay ndaw ñoo ko wër moo tax li mu bëggoon samp mu samp ko ay màgget mënuñu liggéeyu lislaam lislaam du diinay màgget ku màgget rek bokkatoo jël nga retraite ñaareel bi mooy al ashabab sanaatul amal ndaw yi mbokk yi ñoom ñooy usine bu baax bi nga xam ne la lu baax la fay génne maanaam yaakaar ñooy yaakaaru xeet yi ndaw yi ñooy yaakaaru xeet wi gis ngeen Abdou Diouf bi mu bëggoon xas ndaw yi Sénégal lan la tax lan la wax jeunesse malsaine jeunesse bu ñu yarul jeunesse bu ñu formewul jeunesse bu bon lu ko waral parce que kenn préparé wu leen waaye ndaw yi ñooy izzatul watan ñooy teddange xeet wi xeet wi pour mu tedd foog ñu defar ndaw yi wa lizalik hum yamlikuna taqat haila la yumkin wasfuha ndaw yi ñu ngi force boo xam ne kenn mënu leen téye ku weddi laajal Ablaye Wade keroog bi ndaw yi takkoo ne ko da ngay wàcc est-ce que wàccul dafa wàcc ndaw yi lu ñu amul rek ñoom la lu ñu deful rek ñoom la pays bu mu mën a doon ci àdduna su ndaw yi simmee koo waaj a wàcc loolu moo tax islaam mbiram yépp mu jubal ko ci ndaw yi diina ji diinay ndaw la amul fenn fu yàlla tabaraka wa taala cërale diina ji ay màgget yu xubi daas yoo xam ne munuñ dara góor ak jigéen ñooy ànd ndaw yi mbokk yi ndaw yi kàttan bi ñu am amul fenn amul lenn lu ko attan moo tax lu ñu amul rek ñoom la assabab hum asaasu nahda wa taqaddum ndaw yi ñooy fondement xeet wi pour mu jóg pour mu dem ci kanam ndaw yi ñooy fondement bi ñooy pied yi kon loo ci dégg su keno yi dëgëree tabax bi dëgër kon xeet wi day jóg waaye bu jógee day dem waaye loo ciy déggaat kon bu fekkee fondement bi baaxul pays yi dëgërul loo ciy dégg comme sunu société tey la mel nga xam ne système bi ñu leen tegal mooy LMD lamb musique danse société bu bëgg a dem ci yàlla ñett yi du nekk sa programme dund ay nit laa wax yu bëgg a dem ci yàlla ñett yi seen programme dund da ciy génn mooy lan làmb waxuma pour ngeen nekk ay mbër de non toog sax di ko seetaan xam nga feebar bi souvent même ñi nga xam ne dañuy dem ci jàkka yi ak di jaamu yàlla ak nangam nangam dañ yaakaar ne mbir mi laalu leen fekk dimanche comme tey fekkoon ne combat am na genn wàll gi ci ñoom ñëpp duñ dem programme islamique bi waxuma la duñ dem waaye da ngay fekk ci télé bi ki nga xam ne moo doon yaakaaru xeet bi boroom kër gi ak soxnaam nga fekk lañ ci télé bi la ilaha illallah ah ah ah ja seeram day daw concentré wu ah di tourner comme yenn saa sax nga gis ci koo xam ne day crise cardiaque um jëm te ñun ñu ne ñun ñooy war a defar xeet wi mais feebar bi dal xeet wi dal nu yàlla ba mu nalee alak nit ña te feebaru dëkk ba feebar bi xam nga ci ñan la ko yàlla indi docteur yi ba docteur yëpp tëdd ah léegi ana ñuy sauver nit ñi loolu nag moo nu dal fi mu nekk nii ñun ñi war a sauver xeet wi ñun ñoo feebar dañ laaj Ibrahim bun Adham rabi rahimahullah ñu ne ko lu tax démb borom xam-xam yi bu ñu waxee rek nit ñi yeewu mu ne waaw parce que nit ñi dañ doon nelaw borom xam-xam yi di leen yee ñu ne ko tey nag mu ne borom xam-xam yi dañoo nelaw nit ñi dee kuy nelaw mënul yee ku dee saxi kon ñun ñi war a sauver xeet wi ñun ñoo war a ne péng toxoñu xam am na loo xam ne ci suñu dund waratuñu yitteel ay télé ay théâtre ah ay yu kenn xamul yooyu waratuñ tardel mbokk yi ma ni combat lu mu dangereux dangereux lu mu graaw graaw graaw waruñu waruñoo yitteel puisque programme boobu yow sa programme lay daaneel si programme boobu nga seetaan programme programme boobu yitteel la su amee su taxawee yow lay yàqal kon yow loolu waru la yitteel bal yow da nga ko war a combattre kon mënoonu def fi pause incha allah dem julli ji ñëwaat.
waaw ñu ngi ñaan mbokk yi rek bu ñu sëlmalee rek directement kenn ku nekk ñëw toogaat fa nga toogoo incha allah.